amul amul ay tànk ginnaaw amul ay tànk ginnaaw Serigne Touba mooy li li li mag ñi di wax rek moom boo ko defalee loo mën mu defal la loo mënul Serigne Touba boo ko defalee boo jéemee def li nga xamante ni tey yow mënoo ko Serigne Touba defal la loo xamante ni tey sa doole wala sa xel wala sa xalaat àggu fa te gis nañ ni yoonu murit suñu ay maam ay maamaati maam ñun mën nañ ne ci ay maanaam doomu Serigne Touba sax am na ñoo xamante ni gisewuñ ak ñoom waaye liñ naan Serigne Touba mooy tànnal boppam ay nitam mooy tànnal boppam ay taalibeem bëri na ngay gis ci ay famille ñi nekk ay tiijaan nga gis benn nit doon ci murit sëriñ bi moo koy tànnal boppam man mun naa ci ay samay maam ay tiijaan lañ ci ñoom laa yoroo waaye sëriñ bi moo ma tànnal boppam lu bëri nag sax koy gis wax ci moom daf may xaw a jafe bi ñuy waxtaan damay naan man avant may doon li ma doon tey nekkoon naa ci beneen yoon boo xamante ni mënoon na doy waar waaye sëñ bi moo ma tànnal boppam man lépp lu ma am Serigne Touba la lépp lu ma doon Serigne Touba la amuma ci sax ay xaaj ak seen wala ay jeeg musique la wala hip la yooyu amul loolu déedéet man Serigne Touba fës après ay ngaaka blend yooyu soog a ñëw ay rab ay yeneen ak yeneen soo a ñëw seriñ Touba moo njëkk. yàlla def boole ma ak sëñ abdu Karim bi may gën a nekk tout tànk di def cm de sama maam jàppoon sama loxo yóbbu ko boobu mi woon géejawaay ca golf ma nekk xale bu ndaw xaw ma woon mooy sëñ Abdou Karim mu ñaanal ma ma dem examen yàlla def ma am li ma doon wut sëñ bi desoon sama bopp ma màggaale ko màggaale ko ba toll ci maanaam jébbalu ba toll ci joxe sama njébbal mu ñëw jox ko sëñ Abdou Karim moom tamit mu ma Baye Fall yi tamit yaatal ma ñëpp yaatal ma léeg-léeg gis nit naan man du déglu rap wala du déglu musique waaye bëgg bi mu bëgg Serigne Touba moo tax ma bëgg ko. Mhm. yokkute la donc waaw Serigne Touba moom bu bëgg rek waaw. yokkute la ay mbégte kese la. donc waaw nga may benn question boo xamante donc ci wàllu projet yi parce que gis nañ ni boobu léegi artistes yi ñu ngi ci wàccaayu màggaay bàyyi ko gaay génn feneen quoi loolu lan moo ko waral. waa dafa fekk fu mu toll nii nag xam nga lépp loo gis rek day laaj organisation ay man tamit moom ma sama bopp ci li may def léeg-léeg dina am ay bëgg-bëgg man su ma sañoon sama lépp maanaam dama koy def ci Serigne Touba bu màggal di jub su kenn du ma gën a def ay ay mbir ci sëñ bi waaye. fii ñu toll nii nekk si waajtaayu album boo xamante ni bëgg nañ mu génn ci at bi bu ñu jógee ci màggal gi rek bëgg nañ jàll ci communication bi joxe date yi. léegi nag bëgg nit ñi gën a xaar album bi. waaw gën ko mu moo tax ñu ne nañ def tekk rek. waaw bàyyi xam nga gars yeneen bàyyi faal def ay mbir. bu lépp jàllee ñun ñu ñëw annoncé album bi. am yaakaar ni tamit waaw sëñ bi dinañ dinañ fi defal ndam mu yaatu. ni ñu koy wax rek ku ne tekk tekk woon la